15 jours avant le màggal mu doon 16 76 plutôt 15 jours 14 jours après le màggal 205 14 jours avant après màggal 76 décès yi 10 décès 14 jours avant 7 décès donc li ñuy wax indicateur épidémiologique Covid bi ñoom ñëpp dañoo effondré wu dañoo baissé de manière significative 14 jours yi topp ci màggal loolu doy na pour tënk ne.